المصطفى مثل أنس برأ القدوس من كل دنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نفعتني وقدت لي إحسانا ورثت في مدح النبي حسانا لحاز عبد الله خادم الرسول dunya wa uxra ismatan wa xayra suul ziar bi nga xam ne at mu jot waa Daaru Salaam dañ koy amal ci xalifa général des Mourides def nañ ko ci altine ji sëriñ maam Cheikh Anta ànd ak mbooleem rakkam yi ak cheikh yi nga xam ne dañoo nekk ci Daaru Salaam ñu ñëw ci sëriñ Mountakha Mbacké Bachir doon ko jébbal addiya ji mu toll ci 172 millions de francs CFA ni nga xam ne saa su ne noonu lañ koy defee rek. ñu jébbal ko sëriñ bi daal di ci boole allumette ngir wan sëriñ bi ne addiya yi ñoom pare nañ ci ginnaaw buñ ko ko joxee te sëriñ bi mën na ci def lépp lu ko soob. ginnaaw bu kilifa yi nuyoo ziyaare jébbal nañ sëñ bi addiya ji ginnaaw bi nag sëriñ maam Anta am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko fa. tàmbalee ci kër sëriñ Mouhamadul Mamoun jaar ci kër Alhaji sëriñ Takko jaar ci kër sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar jaar ci kër Alhaji Dam Mbacke. jaar ci kër Serigne Ibra su Thiam jaar ci kër Alaaji Sam jaar ci kër Alaaji Moustapha Caytu jaar ci kër Serigne Abdou Golo jaar ci kër Serigne Cheikh Thioro ne góor ñi ak jigéen ñi Mbàkke seenu njaboot ñoom ñépp teew na kenn ku ci nekk def nga la nga man ngir yàlla ci gaal gi ci gaal gi ñëw jébbal na ko ak almet ji na ko sëriñ Modou Mamoun daan defe sëriñ Modou Rokhaya daan ko defe di ko ànd ak i baayam sëriñ Amidou di ko def di ko ànd ak ay waajuram sëriñ Asgeri di ko def di ko ay ba tey jii sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Jiili jiite ko ak njabootam gii ak alhaaji Mor Fati ma nekk gaawaan ak mbooleem njabootu borom gaawaan gépp ñoom ñi ngi takkaat seen laxasaay takkaatu buum ci seen baax na ko maam Cheikh Anta defe woon na ko mbàkk yow mii sëriñ Tuubaa ne te bàyyi leen ak suñu mbir mu bàyyi la ko ak mbirum taalibe yépp nee sëriñ si jàmbaar lañu lool Mbàkke waaye taalibe yi kenn gënu leen di jàmbaar luñ ci def rek nee taalibe yee def kon ñu ñaanal taalibe yi ba seeni sëriñ ak seen ak seeni sëriñ ba luñ def ren bu déwénee ñu mën a def fukkam nee liñ jàng ci alquran. nee liñ jàng ci xasaay. moo gaal gi lañ boole. moo gaal gi lañ boole. ko. jébbal la ko Mbàkke. di ci ñaanal. nee nga yàgg fi lool lool. amiin te te te nee lépp ànd ak wér Mbàkke. suñ borom mën na ko. ci barkeb Serigne Touba mi ngay liggéeyal. Serigne Touba mi ngay liggéeyal. moom it mën na ko. lii nag. nee jotewut ak li ñu war a def ci université bi dara daara di nga xam ne dañ koo tàmbali nee fas nañ yéene kenn duñ ci man ñun waa Darou Salaam Serigne Cheikh Anta ci kàddu ay waajuram nee na ñu ngi yeesalaat njëbbal gi la ko dalee ci Serigne Mor Fati nee ñu ngi yeesalaat ñun ñëpp suñu njëbbal na ko maam Cheikh Anta defoon ci Serigne Touba te nga mat ko sëkk mag nee ñun du ñu ay taalibe ay jaam jaamaati Serigne Touba la. ne eh, fa maam Cheikh Anta ne woon ak Serigne foofu rek lañ nekk Mbacke ne jërëjëfati Mbacke am nañ tawfeex bu baax. ginnaaw kàddu yi Serigne Cheikh Anta yooyu am na kàddu yoo xam ne sëriñ Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides yëkkati na ko ci jataay bi di rafetluwaat bu baax a baax jëf ji nga xam ne at mu jot waa Daaru Salaam daañu ko jëf. salaam moom nee na gëm nañu fa la jógee nee na fa la ndax yàlla boole ko ci yéen waa Daaru mu ne suñ boroom boole na ko ci yéen lu jiitu tey kon foofee la jógee nee na loolu la njëkk a sant alhamdulilah rabbil alamin sant nag ci taxawaay bi bu baax a baax na di sant nag ci taxawaay bi bu baax a baax ndax taxawaayu maam Cheikh Anta ba mu ci tàmbalee ba ci jataay bii nee na mi ngi ci yeesal ak cantam di ci yeesal ak jaayanteem di ci yeesal wëllëreem ak kër gi di sant bu baax a baax baax nee na kon daa digganteem ak kër gi léppam ak cant lay doon te foofee la jóge nee yëg na taxawaay bi bu baax a baax a baax nee na kër maam Cheikh kenn umpaliwu ko ku bokk ci Sëriñ Tuuba mais ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy tudd di tudd Sëriñ Tuuba ak mboolem taalibe bi xam nañ taxawaay maam Cheikh xam taxawaay bi it boobee ba léegi mësta sooxe na mu daan doxe rek lay doxe ba agsi ci jotaay bii nee kon loolu xamul lu mu ci feeñale mbégam xanaa mu ne li ko gën a ñor rek moo di ak jaayanteem ak sëriñ bi na kon mi ngi leen di seeral ne ci seen jotaay bi ci li mu weesu lépp mi ngi fas yéene gën a yeesal ak jaayanteem fas yéene gën a fàttali ak laxasaayam lépp it fas ko yéene ànd ak yéen rek ci ñaan su borom bu baax a baax a baax tawfeex ju rëy joojee nga xam ne moom la maam Cheikh amoon te mi ngi ñaan ci baaxu sëriñ bi ak ngëneeli sëriñ bi ak daraje sëriñ bi mi ngi ñaan tawfeex joojee di yokku di yokku di yokku ba bis lañ jóg nee na bi mboolem njabootu maam Cheikh nee na mi ngi ñaan su borom gën leen sàmm gën leen a aar gën leen gën leen a wéral gën leen a kàttanal suñu borom itam di leen gën a kàttan ak taw benn sëriñ seen lépp di gën a yomb seen lépp di gën a yéwén seen lépp di gën a barkeel lépp wëlbati ko waat delluwaat ci ndamalu sëriñ Tuuba dana li la ci koo wax a génne na lii mooy ziar bi nga xam ne moom lañ leen jëlale woon ci waa Daaru ñu ñëwoon ci xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir daaw ñu indi woon 150 millions de francs CFA ren ji ci atum 2019 bi ñu indi lu toll ci 172 millions de francs CFA.